nit ku nekk ci àddinaam dina toll ci jamono ji nga xamante ni dina soxla ku ko gindi wala ku ko xoolal ay mbiram ربنا تقبل dañuy dem ba tiit wala ñu jaaxle ngeen dara ci seen xel insha allah rabbi dañ ko teg ci diine teg ci lislaam te boobaa danañ la xoolal sa avenir xoolal la sa vie sentimentale xoolal la sa vie professionnelle ak sa wàllu wér-gu-yaram contacter leen ñu incha allah rabbi danañ leen ci jox ay leeral ñu wax leen ay sarax yu ngeen def. nit ku nekk da ngay toll ci jamono joo xam ni danga nekk ci xat-xat loolu incha allah rabbi danañ ci joxe ay ay leeral seen ay problème personnel bu leen ci am benn xalaat dinañ ci waxtaan ak yéen dalal leen conseiller leen jàppale leen ba lépp li nga xamante ni bëgg ngeen ñu waxtaanee ko incha allah rabbi danañ leen ci déglu waxtaan ceeg yéen jàppale leen ci bu leen ci dara jaaxal woo leen ñu rek ci numéro bi dana leen ci jàppale ci baaxu yàlla ci maagu yeneen bi ak aminu Serigne Touba اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة اللهم أعزنا بطاعتك ولا تضلنا بمعصيتك